Yoona sar juróom ñaar ginnaaw loolu yéesu doon na wër diwaanu galile bëggul woon a dem diiwaanu yude ndaxte yawut ya dañu ko doon wuta rey fekk na bisu xewu yawut ya ñu koy wax màggalu mbaar ya mu ngi doon jub si noonu rakki yeesu yu góor ya ne ko jóge fi te dem diiwaanu yude ngir say taalibe gis ñoom itam jaloore yi ngay def ku bëgg a siiw doo nëbb say jëf boo demee bay wone jaloore yu mel nii fexeel ba ñépp gis la rakkam yi dañ doon wax loolu ndaxte ñoom itam gëmuñu ko woon yéesu ne leen sama waxtu jotagul ci yéen nag waxtu yépp a baax àddina du leen bañ waaye bañ na ma man ndaxte maa wax ni seeni jëf baaxul yéen nag dem leen màggal ga demaguma màggal googu ndaxte sama waxtu jotagul bi mu leen waxee loolu ba noppi moom mu des galile bi rakkam ya demee ca màggal ga yéesu itam sog a dem te kenn yëgu ko siiwalul demam fekk yawut yaa ngi ko doon seet ca màggal ga te naan ana waa ji ca biir mbooloo ma ñu ngi doon déyante di wax ci ay mbiram ñi naan nit ku baax la ñe naan déedéet day nax nit ñi waaye kenn ñimewu ko tudd ca kaw ndaxte dañoo ragaloon yawut ya bi ñu demee ba ca diggu màggal ga yéesu dem di jàngale ca kër yàlla ga yawut ya nag jaaxle daldi ne nu waa ji def ba xam lii lépp moom mi jàngul yéesu daldi leen tontu ne li may jàngale jógewul ci man waaye ci ki ma yónni la jóge ku fas yéene wéy ci bëgg-bëggu yàlla dina xam ndax sama jàngale ci yàlla la jóge walla ci sama coobare nit kiy wax ci coobareem nag day wuta màggal boppam waaye kiy wuta màggal ki ko yónni dëgg rekk lay wax te jubadiwul fenn xanaa du Musaa moo leen jox li yàlla yi waaye kenn ci yéen sàmm ko lu tax ngeen bëgg maa rey mbooloo ma ne ko xanaa danga am rab ku lay wut a ne leen benn jaloore rekk laa def te yéen ñépp ngeen jaaxle li leen musa jox ndigalu xarafal gune yi jógewul kat ci musaa mi ngi tàmbalee ci seeni maami cosaan moo tax ba ngeen nangoo xarafal nit ci bésu noflaay bi bu ngeen mënee xarafal nit ci bésu noflaay bi ngir bañ a wàcc yoonu musaa lu tax nag ngeen mere ma ndax li ma ci wéral nitu lëmm bàyyi leen di àtte ci di gisee te di àtte dëgg am na ci waa Yerusalem ñu doon wax naan xanaa du nit kii lañuy wuta rey xool leen ngi waaraate ci biir nit ñi te kenn du ko wax dara ndax sunu kilifa yi dañoo xam ne mooy almasi bi waaye waa ji xam nañu fu mu jóge te saa su almasi bi dee dikk kenn du xam fu mu bàyyi ko yéesu di jàngale ca kër yàlla ga daldi wax ca kaw ne ndax xam ngeen ma te xam fi ma jóge ñëwaluma sama bopp waaye ki ma yónni ku wóor la yéen xamuleen ko man xam naa ko ndaxte ci moom laa jóge te itam moo ma yónni noonu ñu koy wuta jàpp waaye kenn mënulu ko woon dara ndaxte waxtoom jotagul woon moona nag ñu bari ca mbooloo ma gëm nañu ko ñu nga naan ndax bés bu almasi bi dikkee ay firndeem dina ëpp yu nit ki farisiyen yi daldi dégg la mbooloo ma doon déyante ci mbirum yeesu saraxalekat yu mag yi ak farisiyen yi yebal ay alkaati yu daan wattu kër yàlla ga ngir ñu jàppi ko yéesu wax ne dinaa nekk ak yéen fii ak ab diir soog a dem ci ki ma yónni dingeen ma seet waaye du ngeen ma gis te du ngeen mën a dem fa may nekk yawut ya di laajante ci seen biir naan fu muy dem fu nu ko dul fekk mbaadu dafa nar dem ca yawut ya gàddaaye ca gereg ya te jàngali gereg ya lan la baat yi muy wax di tekki dingeen ma seet waaye du ngeen ma gis ak du ngeen mën a dem fa may nekk bés ba mujjoon ca màggal ga moo ci ëpp solo keroog yéesu taxaw wax ca kaw ne ku mar na ñëw ci man ku gëm na naan ndaxte mbind mi nee na ndox mu bari muy dundale dina xellee ci dënnam booba li ko taxoon di wax mooy xelu yàlla mi ñi ko gëm naroon a jot fekk na joxe woon xelu yàlla mi ndaxte ndamu yéesu feeñagul woon bi ñu déggee wax jooja am ay nit ca mbooloo ma ñu naan dëgg-dëgg kii moo yonent bi war ñëw ñeneen naan mooy almasi bi ña ca desit ne waaye nan la almasi bi mën a jóge galile mbind mi wax na ni almasi bi ci xeetu daawuda lay wàcce te batleyem dëkku daawuda lay jóge noonu féewaloo daldi am ca biir mbooloo ma ndax yéesu am na ca ñoom ñu ko bëggoon a jàpp waaye kenn mënulu ko woon dara bi alkaati delloo saraxalekat yu mag ya ak farisiyen ya laaj leen ne lu tax indiwu leen ko alkaati ya ne leen kenn musula waxe ni nit kooku noonu farisiyen ya laaj leen mbaa naxuñu leen yéen itam ndax am na kenn ci saraxalekat yi walla ci farisiyen yi ku ko gëm déedéet waaye mbooloo mi xamuñu yoonu musaa ñu alku lañu dem bokkoon na ca farisiyen ya fa nekkoon fekk moo seeti woon yéesu lu jiitu mu ne leen ndax ci sunu yoon mën nañoo daan kenn te dégluwuñu ko mbaa ñu xam lu mu def ñu tontu ko ne mbaa yow itam danga bokk ci diiwaanu galile gëstul kon dinga xam ne benn yonent musula jóge galile